tey nakar ak tiis la askanu Sénégal yeewoo ginnaaw dëddu ko àdduna am Dani Gueye ginnaaw feebar bi mu doon wëyaale te ñu bari umpale ko woon waral tey dëddoom uh, doon mbetteel bu doy waar ci askanu Sénégal Momy Gueye ñu gën ko xam ci Momy Dani Gueye doonoon soxnay Bougane Gueye Dani naka noonee njiit fële nga xam ne moo di ci groupe des ginnaaw ba ñu yëgee li nga xamante ne moo di tiis bi dal tey ci askanu Sénégal ñun waa Kéwoulo TV demaloon nañ leen fële nga xam ne moo di des ngir rekk nemmeeku naka lañu dundee eh, bi la tiis. waaw ni nu ko yëgee rek mooy kenn ku nekk séq nga ak moom baax séq nga ak moom yar séq nga ak moom dal surtout mu yor programme mu Sen TV. nek directrice programme mm, kenn ku ne man nima ko yegge ma ngi won dama tek micro bi rek di lem sama ganam bubu parce que dama nan comme damay dawal munuma sol ganam bubu di dawal ci sa si rek ñu tagge mako mais fima taxaw ñima wër rek xamna ñu ne amna luma dal dama ni allahu akbar ñu ni ma lan la ndaysan ben jigen layen la sax fi la dekk man ko ah, dañ ma tagge momi ñom ñepp lañu stressé nonu la duggé sama auto départ jadduma fenn djubal ci sen TV parce que ki ki dem ku reuy la ci ñun ku bax la ci ñun ku dal la ci ñun ku tabe la ci ñun ku ñu mëna soutenir la ku ñu jàppale la ci sunu mission ki dem motax ñu fuy xam nga ñaata la def sen TV 5 ans xam nga kañ la xam mumi daw la ko gis beut ak beut wala daan na ko gis mais kañ la ko gis xamé ko daw bi ñuy defar ay ndogu laa nuyoo rek romb ko tourné ni Fatou Abdou Fatou Abdou Ndiaye Fatou Abdou kii kan la mu ne ma yow xamee sa patron mu moo toog nii ma ni ma ni koo xam ni yaay patronu des médias sa borom kër ko moom am na jigéen ñoo xam ne bu doon ñoom subaak ngoon gu dégg ñu ngi ku ñu gëdd ñu ku ñu wàññi ñu ku ñu nàngam mais moom mi buy waxtaan ak yow sax ci dara mën na la ko imposer parce que dañ lay fay weer mais li muy njëkk a def balaa mu lay woo téléphone moom it daf lay message ne la est-ce que mën naa la woo bu la dérangé wul nga ne ko ok mu woo la buy wax ak yow day mel ni daf lay neexal gëmewu la pour nga defal ko loolu kooku nag boo ko ñàkkee foo jaar sa loxo aju jëm ci sa gémmiñ nga ni e ñëpp e boobu la ñu yeewwaale ku def témoignage jooy xam ni ñàkk nañu koo xam ni wax naa sànq ni suulagun ko de waaye ruu gu baax dem na ruubu dal dem na ma ni du yàgg léegi mu war a fekk way juram waaye day fekk baay bu ko bëgg waaye moom itam baay bu ko bëgg doomam mi ngi koy fekk si mbetteel jaxle njàkkare tiitaange lañu nemmeeku ci xar kanamu ñi nga xamante ne ñooy daan seen doole fële ca D-Media ci seede yi ñoom nag ñu ngi fësal seen nakar ak seen tiis bi nga xamante ne

Euh, tellement que euh, nouvelle bi dañoo bett mais daal li ñu mën a wax mooy euh, nit ku discrète ku généreuse ku ku ku jàppale également borom këram parce que comme ni ko Oustaz elle a traîné cette maladie pendant huit ans on va dire mais daaw ko gis ci moom boo ko xamulee doo xam ne sax que est malade te nit la koo xam en tout cas li ma xam ci moom mooy elle a été vraiment à côté de son mari pour son succès parce que tey jii nii peut-être D-Media lañ xam mais yeneen entreprise sax yu buggaan da si doon dugal loxoom pour succès wu borom këram donc yaakaar naa nit koo xam ne dafa yu borom këram la ba yàlla tey def li gën ñu koy ñaanal peut-être fi mu jëm gënal ko fi mu jógee loolu daal la ñu mën a wax ci Momy euh, Momy Dany Guèye mi nga xam ne vraiment en tout cas nit ku généreux la te man am na xam naa ci dara parce que comme je l'ai je vous dire dit tout de suite def naa fi huit ans xaw ko mais chaque pourtant chaque euh, corps dañ daan am pañe chaque jour damay ñëw ñu ne panier bi mooyu moo ko indi te man ndekete maa ngay maa ngi romanteeg moom te du ma ko xam te dama koy romb duma ko nuyu sax par exemple damay ak suñu activité xam nga yaa journaliste da ngay jóge sur le terrain war ñëw monter ngay ñëw romb nit ki fif dem alors que sama patron la te xaw ma ne CL xam nga loolu dafa nekk nit koo xam ne ça veut dire que ne kii wanewul parce que bu doon keneen la mënoon naa wane ne man maay sa patron

message yaa ngi ni mun mangi ko woon mbay maa ngi jégalu baal ma de maa ngi jégalu dama jàppoon joxu nit wàccuwaay woo xam ni yow sax da ngay mujj rus yow mi nga ya-, te yaay employé am mooy kilifa kër gi mooy direct mooy directrice gi kon nak yal ko yàlla yërëm xaaru ko aljana man mom franchement fi ba léegi ni dama am dama am dama am lu ma lu ma yàlla nag du dana lu nu naqari ndax lu lu santal bu santal kon doon naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun naan alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla musal ko ci cat ci bàmmeelam yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam non relation relation relation yu am solo soxna si moom mi amul kenn ku ne ci kër gi ni muy mën na ko wax lu mës na ko wax lu ko naqari déedéet mu musu am même boo amee noo defee sax parce que man ci équipe test bi laa nekk en même temps maay def revue de presse digital ngoon gi moom i musuma woo te ku ne xam ne des fois ñu def ay ay ay faay mais musuma woo corrigé ma musuma woo ne ma mbay lii def ndax yar gi ko yàlla jox moom nee naa ko moom wàlliwu la moom it nekkul woon nit nit ni mais wàlliwu la parce que loolu nag man mën naa mën naa ci wax lu bari amaana ku dund toog moom a ko xam xoolal tey sag gi ko yàlla may papa coon mooy suma mooy suma baay rek sag la Bougane Gueye Dany mooy suma borom kër sag la waaye aussi Wally Ballago Seck mooy suma rak sag la waaye yére yére yooyu mosu cee sol benn yére mbaax yére yiw yére tatagal doomu aadama jox la wàccuwaay wi la yàlla jox moom la mës sol kenn mësu koo xamal lenn loo xam ni danga cay teg sa bët naan acam amul amul amul moom ku ku effacé wuloon woloon loolu dafa effacé woon fii dafa mel ni sax jiitewul woon fii bu ko neexoon nag wax dëgg yàlla mu yëkkati mbagam ne man ma directeur général mu dee média waaye wallahi ansi mosu koo doxee mosu koo waxee. tey xam nga teel a école di tijji normalement dafa amoon benn reportage bu waroon am teel ma ñëwoon ma teel a ñëw fii jël di jël matériel vigile bi na ma ma gis télé bi ma toll fee gis télé bi ñu teg alxuraan affaire yooyu def def bannière bi quoi vigile bi ne ma ma ne ko lal la mu ma muumi moo ma ne ko muy mu ne ma waaw ko non man de wax dëgg fa yàlla yëgu ma ko affaire bu bett ma nag parce que tuuti ma xaw ma sax lu may def ba émargé ma dama waroon émargé émargé ma sax ba ma demee reportage ba fàttali ko ne wu ma si laa woowaat vigile bi nekk émargé wu ma mais su ma maa ngi ñëw quoi maa ngi fi ñëw ay 7 mooy laa fi ñëw parce que dama waroon teel a génn mu wax ma ko jël naa samay bagage ba émargé wu ma billaahi bon mu muumi mun mosuma wax si télé nag ku fi mënta ñëw ñu bari wo nañ ma affaire rangu bi ñu bari parce que man mako don doon filmé maa ko doon defal lépp lu ci bari affaire rangu bam amé ñu bari wo nañ ma sax ci seen gars musuma wax ci télé musuma si musuma si wax parce que musuma bëgg a ñu bari dañuy dégg ma daani sax ñu bari xamuñu ma parce que nan non la ko bëgg bëgg bëggee sax quoi mais li il faut mu wax ci parce que an nañ maak mom ñaar yoon moom ñu bari sax xamuñu ko fi mun nga tok 2 mois dok fi gis te yaangi ci kër gi an nañ ñaar yoon tournage yo xamné journée la journée si kanam auto bi la tok kurusam day day dawal du yor kurus billaahi li may wax man bon mu ngi si dëgg maa ngi si fen kurusam la yor day wér bu heure julli jotee parce que dañ doon tournage dañ doon tourné tourné boo xam ne dafay yàgg loolu jàllagul sax jéegu pouson jàllagul sax loolu jàllagul ba tey journée bu fu heure julli jotee day dem julli ji ba pare ñu continuer loolu moom loolu laa gënoon mën a wax parce que loolu laa gënoon parce que ba ma kiiwee rek loolu moo nekk sama te la am bëriwul wax bëriwul ay su xamee ne su la waxee dara sax dalay métti sax du la ko wax buñ su lay su la waree ànd tournage la veille ma daa ne su matériel yi na suba ah, ndànk nag la la koy waxee du la te pourtant mooy sa chef pourtant mooy sa directrice sérieusement amul amul woon folie de grandeur wala par exemple mu la mu lay wan ne maa chef gaa directrice su euh, muum yi sax ba mu gaañoo sax laa koy dégg nii billaahi walaahi bon sérieusement amuñu woon relation bu kii man dama bëggoon rek pour wax leen loolu amuñu woon relation du duñu doonuñu woon wootante bu ñu wootante tam ci liggéey bi la amuñu woon relation bu particulier boo xam ne peut-être dañu bon dañ ci mën a dañuy mën mën naa leen ko wax quoi amuñu woon benn relation ma ak moom sérieux lu dul liggéey bi kan moom bon su daan am production danaan ñëw gérer lépp dina xool ndax nit ñi lekk nañ dina xool ndax nit ñi ñu ngi si parce que même même jour ba ma lay wax ne ñu ngi dem ñu ngi dem tournage fii amoon na tournage mais si oto bi yëpp day woote ñaata ñoo fa nekk maa lekk nañ loolu moom mën naa seede seede loolu waaye soxna soo xam ni xuma du amati de waaye mel ni mu mu balaa jigéen di mel ni moom trois coins yi ko séq benn bu ci jigéen am dina beew doomu coon sekk laa. sa baay ñëpp xam nañ ko kon war ngaa fuuy magu Waly Seck la mënul nga am nooy wane woo mais soxna yu buggaan Gueye Dany la muy trois yoo xamante ni kenn ku nekk rek waroon na jar nga tiitaroo ko mais est-ce que mës ngeen dajeek moom it ci site internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen a est-ce que mës ngeen ko dégg ñu partagé ko ci détail wala mu wax teg-teg comme yaayam kàddoom néew na jëfam bari na mu mi daal lenn rek da ngay ñëw bunt seen TV. fekk saak bu tege ñu defal la ci ay jees neer ay couleur ngay wàcc visil bi ne la oustaz euh, am am mbuus bi nga ne ko pour lan la wala saak bi la moom mi moo la ko jox jël enveloppe bu xaalis roof ci biir pour nga ñaw ko yenn saa ngay wàcc day xam sa heure cag-cag egsi taxaw oustaz na def nga ne ko maa mu jël mbuus jox la wala saak ni la moom mi moo la ko jox jël enveloppe teg ci maa ngi wax léegi ni leen même message am bi mujj daf ma ciy ñaanal même pas trois semaines nga xam ni kon ku baax moo dem ku yaru moo dem waaye ki ëpp problème ci dem gi mooy buggaan moom ñaareel la bu mënee gérer seen TV kon nga xamante ni ku maîtriser boroom këram la wax naa ko sànq bés dañuy waxtaan man ak moom mun ma oustaz man di buggaan leen rek ma mën a xari ci moom politique ma ne ko mais sansam la te war na politique mu ne ma bañu ma mu politique waaye dama bañ koo saaga te politique faw ñu saaga la faw ñu xas la bëgguma ko ko saaga bëgguma ko ko xas loolu rek moo may naqari ci politique mu dugg ci waaye lu dul loolu neex na ma ci moom xanaa yàlla xare ko aljana kooku moo dem boo koy tënk daal moo bi mooy nit ku discret dem waaw parce que au delà au delà de de la relation professionnelle hmm, tamit man mën naa seede ne amoon na ay relation au delà la delà de ça parce que ay nit am nañ fii nekk nañ ci ay situation ci leneen nek am soxla wala nek am batem wala lenen ak lenen lo xamne man nit nit kiko ko dund da ko wax ma deg euh, mu wo ko telephone am nu mu def ak mom comme leg leg ni ko waxe waxee jël teranga defal ko nit man mi di wax yow mu xamantew ñu amuñu won ben relation mais pourtant chaque euh, corps dafa nan chaque jour 30 jours yëpp parce que dan man man dañ fi dan nek heure ndogu fekk ñu fi mais bul xam lu mu ñuy indil ci ay ndogu façon lekk bu nekk dañu koy jox maanaam nit ku mën a joxe ñam moo dem donc man daal xam naa daal nit ku discret ku baax kàddu gi benn la seede yi benn la di wéy di fësal li nga xamante ne mooy taxawaayu Momy Dany Gueye foofee ca D-Media ñoom nag ñu ngi fësal. taxawaay bi nga xamante ne moom Momy Gueye Dany amoon na ko foofee naka noone na mu doon wéyalee liggéey bi bile. ay seede yu rafet la waa D-Media daal di yëkkati teg ko ci ki nga xamante ne moo di Momy Dany Gueye di wéy naan xel mën na dal. ci moom ginnaaw jëf yu rafet yi nga xamante ne mu ngi ko doon wëyal jëmale ci ñoom ak ñeneen ci lu ñu xam ak lu ñu umpale. gën a fonkaat mu fi bàyyi. ndax kër gi bokk na ci lu mu fonk lool waaw ku ne ci kër gi xam nga ni moom i musul caaxaane D-Média dafa bëgg D-Média ba amu ci sago ndax ndénkaan la ko ko boroom këram jox c'est c'est un défi bu mu waroon relever relever nga ko sekk nag la la ko waroon ci kër gi def na ko moom i li ko waroon yëpp def na ko li ma gën a marqué ci moom nag dama dama toog benn bis tabaski bi passé benn waaye cag-cag woo ma ne ma moom it moo ma jox sa numéro man ko ah man ko mu ne ma moo ma yóbbante ci yow man ko maa ngi poste Thiawré sama benn place su xarit Pape Mbaye Mbaxar création waa ji ñëw ñu indi benn sachet bu mag jox ma ko sachet ba nag fukki mètre jesner moo ci nekk 10 mètres jesner dama moom yi moo la ko jox te 10 mètres yooyu dafa am lu mu àndal te moom du la jox dara rek bàyyi la déedéet dana ko jox ba joxal jox ju tek ca lo xamni mom moom nga koy ñawee te li gëna doy war moy dama ko wo diko remercier mu ne ma mbay bu sax remercier lima war rek la def ci yeen lima ma war kep la def ci yeen bu mag moma bi lan ko gënoon sax soxla man bok man ah personnellement moma bi lan ko gënoon soxla ak gisoon nañu ak ak ak liggéeyam d'autant fait que man feebaram yëguma ko woon man franchement limay ne ci kër gi yëpp wax dëgg yàlla parce que ni muy waxee ak yow la boo ko messager da lay tontu normal wax ak yow noo xam ni day mel ni mosul feebar waaw mel ni jàmbaar ga njàmbaar ga taxoon daawul feeñ ak jom ji jom ji jom ji nga xam ni moom la làmb moo taxoon daawul feeñ en tout cas maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi seetaan yaa ngi seetaan Kéwoulo ak découverte boo yemee ci vidéo bii dama bëgg nga def ñeent fukki lixlaas nga ni mang ko koy mang koy jëbbal ki nga xamni mom mom koy dan yalla yalla yërem ko xaar ko aljana li rek lay yalwan lay dagan diko ñaan ñi nga xamni ñoo internet di ñu sétane ci kéwulu ak découverte képp ko xamni yem nga ci sama vidéo bi ma ngi ñaan gi jëm yalla nga def fukki nga def ñen fukki l'ikhlas khulola akhar allah samat nga def ko ñen fukki yoon nga ni yol bi kat jébbal na ko nga xamni ne mooy muumi dani yalla yërem ko xaar ko aljana en tout cas xol bu naqari la ñuy waxee yeewoo nañu tey tiis woo xam ne duñ ko fàtte mukk ndax dafa metti bokk na ci li ma gën a marqué ci moom ma ruus ko ci ba grand palaatoo yenn saa yi damay ñëw toog ñi fekkee grand palaatoo xam nañ lu tax ñii ñëw ëpp saisi ma jug man sama place ni diw kaay nga toog bàyyil ma may la nga doxal tey parce que nit ñi xam nañ ma ma toog yokku ma ma ñàkk toog yokku ma man noonu laay génnee dem ñibbi yenn saa yi mënu waroo waroo waroo diine ji mooy tax ma ne ko mais am na koo xam ne bu ma jugul may ko keneen du xalaat jóg may ko bàyyil ma may ko ngir sagal ko parce que acte ci la la nit di soppe loolu marqué na ma lool lool ci moom ak ak ak yàggul dara mu yónnee waat ma ay tisi comme ni ma koy waxee di ma tooñ naan xamoo tisi bi def fausse négueur la ma ne ko mu mi bu nekk sol naa bii moom solo gu ko mun ma dama la ko defal addiyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ma daanele benn mooy gis nga allahu akbar diggante juddu yonent bi ak ngéntali comme ni mu demee xam nga démb la ngéntali moo tombee nag anniversaire bu gaan daaw mu woo ma waa grand foo nekk ma ne ko dama nekk ci ay service parce que dama doon ragal mu mu enregistré loo ma dara fekk sonn naa mu ne ma mais Bougane day def anniversaire tey ma bëggoon ñëw ci man ko yii moom instant yi damaa xat mu ne ma noo jàpp ci affaire la rek man ko noo jàpp ci mu ne ma lend rek laa bëgg nga ñëw tàggalal ma ko yonent bi loolu kase kase kase laa bëgg nga defal ma ko xoolal timis la ma waat ni ma mais yow foo nekk man ko mais damay xaar nga woo ma mun waaye départal waaye balaa gato bi di ñëw xoolal ma départ ñëw fekk fa ay kilifa mais mu traité ko traité bu rafet rafet mel ni daf ko doon wan ni ko dernier feet bu ñu war a ñun ñaar ñu ngi nii def ko comme ni naar yi seen xayma yi ma pare mu ni ma taggal yonent bi ma tagg yonent bi ba mu jooy fa jooy yu metti may ma xaalis yaayam noonu goroom noonu soxna yi waaye la ñëpp toog ñëpp def teraanga bés boobu laa yaakaar ne mooy feet bu mujjee feetal boroom këram xoolal heure boobu net net net net bi ñu nee suba la ngéntali wala bisu ngéntali ci la wuy ji boroomam ñu delluwaat suñu xel ci yàlla delluwaat suñu xel ci suñu borom xam ni kullu nafsin saayaxatil mawti kullu man ala yaa faali te sëriñ Moussa Ka dani loo xejj xejj dee def sa gan di la wër loo ko benn du sa ruu du génn sa kër bu dig ba jeexee ba ruugay wuj yàlla sunu borom mooy gën a métti juróom-ñaar fukk ràbb yu sar kon dee daa metti si Musaa Ka ne àdduna bu doon jigéen tey ma xëy bàyyi baatam àdduna bu doon jigéen tey ma xëy bàyyi baatam mu ne àdduna bu doon mbalaan maam lu nuy sàngoo lu mu liw liw du ma sàngooti maa ko bañ na leen biir dégg nga àdduna bu doon jigéen tey ma xëy bàyyi baatam maanaam tey ma fase ko mu ne bu doon malaat lu ma war a sàngoo dootuma sàngooti sax naa sedd na leen biir na leen leer kon na doon dellu suñu xel ci yàlla soxorante geeg iñaanante geeg defante lu ñaaw li doon ko moytu xam ne kenn xamul ba xam sax sa nooy bu yéegee ndax dana wàccam déet salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. mu ngi noonu mbokku internet yi. lii rekk lañu demoon taataanal leen fële ca D-Media ginnaaw dëddug àdduna Momy Dani Gueye doonoon njiit foofule ci kër googu daanu leen toppal mbir mile ngir mën leen a dégtal ci yan anam lañ koy gunge fële nga xamante ne moo di këram gu mujj ñun waa kewuloo di yeesal suñu njaal jëmale ko ci li nga xamante ne mooy famille mi Dany Gueye naka noonee ca D-Media nga xamante ne moo ko doon jiite.